mbir mi di man fi ma njëkk a jaaxal mooy fi ñu ko jaaree si dañu doon wër lu ñuy tere si dëkk bi ndax chef du village bi keroog bi sëñ Muntaxa waxee day tere si dëkkam nangam keroog tànkam la def kër yu fi nekk yëpp da leen wër ku ne mu nekk sëñ bi joxe na ndigal dañuy tere nangam dañuy tere nangam te kër gi sama maamaati maam sax moo ko mag waaye lu mel ni mosu fee dégg kenn mosu ko fee dégg hmm? léegi nag kuy tere loolu dox tànkam di wut tere loolu si biir si biir ay dëkk ndooyam kiram loolu war nañ ko faase yet nee nañu pool lañu doon wër nii lañu doon wër waaye fekkuñ gisuñ fi dara ah jàpp nañu kii jël nañu ay juróom fukki xaram moom mi alaji den nii rakkam dóor nañ ko buntu néegam lañ ko dóori daj ñu daj porte bi dóor ko ba mu nga nee jànnatu ah ñu yóbbu quatre cent cinquante mille bi mu yoroon yaa ngi dégg ah keneen sa doomi nijaay kee itam kooku itam fii lañ ko dóore man maa ko yóbbu woon ndaamaatu yaa ngi dégg kii nga xam ne moom wattoon jur yi fii lañ ko fekk dóor ko mu ngi mu ngi léegi nag bu ñu defee noonu nag ñëw fekk nit ci géttam dóor ko rawale loolu dugg si biir kër fekk ay jigéen di dagg ay bunt di sànni ay gone loolu kay kana kana lu ne mun na faa war a man moom seedu wu ma baay faal bu dee seedu wu ma bal seedu wu ma lara man bi ma doyee ma ki gaay ki nga xam ne bu gaay ki ñu dóor ci bopp bopp bi toj maa ko jël yóbbu ko yaa ngi dégg ki nga xam ne moo wattoon gétt gi ñoo daanu ci moom dóor ko fii doog dugg seen néeg gi jigéen bi doon wax fii mooy maga ay léeru ma dem ma ci néeg yi man ma foofu laa ci waaye nag lépp lépp lépp bu fekkoon dañu agsi woon ci njëkk ak terank ñoom ñëw nañu fi ñu naan am na ku ñu yónni ñëw na fii jënd jëndaat jënd jëndaat kanakay ki ñëwoon jënd jëndaat kooku war naa mën a jiite mu kii moom a jaay jaayaat na wala du dégg wala mu naan kër gi laa ko jëndoon jëndaat ko waaye ñëw nañ fi kër yi kër gu mag la rek ku nekk ak kiram ku nekk ak kiram ah kër seet village lañ jéem ñun kay jàmm rek lañ bëgg ni kii ni sëñ bi sante woon ni ko sante woon kii sant ñu ko ñun ci loore rek la ñu wéy ci ndigal rek la ñu wéy ñun itam ba tey Baye Fall yi dañoo nekk Baye Fall waaye ñun itam ay murit la saa def lañ nangu murit itam ndax kii keroog bi ko sëñ bi dogal waxee loolu daa sol dalla mooy chef du village bi kër yëpp lii mu village yi yëpp da leen koo wax ni mu bëggee foofu jàmm nuñu tam noonu dong lañ ci bëggee jàmm lu ñuy tere buñ ko gisee suñu bët sax ñun dañu koy tere sëñ bi lu mu lu mu santaane lu ñuy tere buñ ko gisee seetuñu Baay Faal seetuñu gendarmerie seetuñu police dañ koy jéem a tereel suñu bopp duñu xeex nag duñu def dara suñu doom yi ñu jàpp dañu leen ramax rek fekk fekk ñu leen ci dara fee lañ fekk kañ toog ci buntu bâtiment bee bu ñu leen fekkee foofu ñu ramas leen ñoom yëpp yóbbu yaa ngi dégg am na ñoo xam ne si kër gi lañu dëkk am na ñoo xam ne yeneen kër yi wër nii rek dañoo doo wëllu si rek am na ñoo xam ne sax dañoo agsi rek tombi ci ñu jëlaal leen noonu waaw loolu moom yoon moo xam lu tax mu def ko waaw loolu moom duñ sori ci loolu yoon moo xam. waaw man li ma njëkk a jaaxal mooy ay mi ah, ay min mi moye kanaa kuy ñëw di visiter kër doo ñëw min mi moye nga war xaar ba yoor yoor wala ba ay 10 on 11 heures midi. une heure nga ñëw su fekkee dañ laa tegtal kër guy jaay poon wala sangara nga ne kër gii laa jëndoon poon wala kër gii laa jëndoon sangara ñu jàpp ki la ko jaayoon yóbbu ko am na wala amut waa ñëw dem ba mi bi mooyee ñëw taalu mot juróomi oto ñëw ba ci papar kër nit ngeen di génne ay jaaseeg door ak bant di di di di toj ay bopp kana loolu kana ñoom wistuñ wistuñ wistuñ poon ñoom kenn bañul yëg kenn yëgu leen sax ñoom dañoo jékki rek jékki-jékki rek ma ba ci kër dañoo bett kenn yëgul kenn yëgu leen ñoom kenn yëgu leen ñoom dañoo jékki-jékki rek ñu ne dara ci kër gi kenn yëgu leen ndax kii kii dañoo fekk mu ngi nelew kay ñi kay kii ñu dóor fee dañoo fekk mu ngi nelew wana kana ku nelew moom defu dara léegi biñ ñëw wax dara góor yi fi ne anañ gën leen ñu nangam taan seen day lañ fi wax kese góor ñi fi ne ana góor ñi jigéen ñi yuuxoo ñu ne soxla wuñ jigéen ñi góor lañu soxla lañ gën nangam taan seen lii di lañ ma fi wax wax ñu fi leneen am na béy gis ngeen leen wante xar yi gisuñu leen wante am na lu am la yaa ngi dégg ñii ñu ko tëdd hôpital ñi yóbbu nañ seen alal ñi yóbbu nañ seen xar ñi yóbbu nañ seen xaalis dama yaakaaroon Baye Fall Baye Fall fekkee da ngay doxee ndigal soo ñëwee ci kër da nga war a xam nooy doxale ndax ñun ñëpp ay murid lañu ñun ñëpp ay Baay Faal lañu ñun gisuñ gisuñu ku faatu ñun ñooñu gisuñu dégguñu ñun gisuñu dé déedéet dégguñu dara ñun ñun daal seen burwe lañ dégg dégguñu leneen ñun daal burwe Baay Faal lañ dégg ku la wax fii déggaana beneen burwe wax wax na nan lañ taxawee jigéen ñi wooy wooy wooy ñu yu ñun ñëpp añ daje bi ci ci ñun ñëpp jigéen ña lépp moo taxaw fii ci état bi wante ñun gisuñu fii leneen lu dul bett nañu dóor nañ bi ñuy bugg a dee lii lañ fi gis. deñoo bëgg affaire bi ñu bàyyi li ñuy def ngir yàlla jëmu Serigne Touba Mbacké ndax gënuñu ñoom gënuñu ñoo nekk ay murit ñun ay murit saa def lañu. yaa ngi dégg ndax fii mooy suñu cosaan ñun xamuñu fenn fudul fii yaa ngi dégg Daar Rahman ñu fii lañ fekk jumaa ji fii lañ fekk suñuy maam fi ñu koy tabax fii jumaa ji ne teen moo fa nekkoon suñuy maam ñoo doon wogg foofu ay nag yaa ngi dégg kon nag gén ñu gënañu ci sëñ Tuuba yaa ngi dégg jumaa ji sama maam def na juróom-ñaari kabban kon nag xam nga ne gën ñu nekk ay murit sëñ bi sëñ Mountakha li muy tere ñun ñoo ko gën a ñun ñoo ko gën a a tere loolu la ñuy bañ fii lu mu bañ Tuuba rek ñu bañ nañ ko fii Baay Faal man bu démb ma gis leen def ni façon bi ñu def bu lee démb wante lii moom nañu dimbali ngir yàlla bum mu ñaaraat ñun béy ak sàmm lañ fi doon def bi bor nañu ñëwee ñu bay béy yaa ngi dégg ñu ñuy sàmm gisuñu fi tool gisuñu fi dara lu dul ay bor fii mooy cay faali cay faali cay faali lii ñuy wax fii ay teenu maam seex ak ay fii ak ay euh, sekew gaak dara amu fi woon fii daaru marnaan moo fi amoon kër ñang sol bokk cay faali boo bëril waaw boo dëkka moo ñu fekk fii ñun borom dëkka moo ñu fekk fii de ñun fekk si fuñ ko moo ñu fekk fii yaa ngi dégg borom dëkka moo ñu fekk ñun fekk fuñ ko de moo ñu fekk yaa ngi dégg moo moo ñu fekk ñun ak sëñ Abdou Mbacké borom dir borom dëkka moo ñu fekk de ñun fekk wuñu kenn yaa ngi dégg fii moo fi nekkoon cay faali sol bokk boo bëril sëñ Gumba salla mais ndindi sëñ fàllu ndindi pël ndindi sëñ fàllu daar rahman béeleel nay lii moo lii moo fi nekkoon soo musaana jóge fii ngay dem tout jumaa ja fii lañ doon def tànk julli jumaa ja saret amu fi oto amu fi kon nag ñun duñu fi duñu fii ay ay tourisme fii ñun fii lañ dëkk fii lay tëdd di xaar di wattu géttam dafa tëdd man mu dugg sama ne sama baay xaar ko après ma jàpp ba pare julli daal di tëddaat ci lalam jàkkaarloog juraam ci lañu ñëw fekke ko foofu ci lañ ko song dóor ko warifuñ dara xooluñ dara lu dul jàpp ci naan nañ sooma ci néeg ba vérifié nañ bagage ba jël sama doom ji te doon sànni ko ci état bu gone gi nekk mooy parental bi ma jëloon léegi sànni ko ci état bi noonu muy wër noonu ah léegi leneen mënoon na fa xew am nu mu doon demee tey paas naa fii tey jii ah kon di nga fekk beneen néew waaye li ñu wax man gis naa néew fi ñu waxoon néew na man maa fa dem maa fa jël yeneen béy bi deewoon ma ñëw di ko sànni feneen dégg nga après léegi ci laa ñëw diwaat beneen bi indiwaat ko fii ñaari fekk mu dee dégg nga man awma keneen léegi ca lañ yu ko ca lañ jaar ci biir kër gi wuuti fetal génn dugg kër sa nijaay dégg nga léegi su fekkee ne am na lu ñu biir kër maa fi nekk léegi nañ vérifié suñ gisee dara ne lii la ñu jàpp ma yobbu wala ñu jàpp boobi wattu juri yóbbu ko am du noonu waaye gisuñu fi dara vérifié fi dara laajuñu dara salaamaaleykum rek daal di attaqué ku tedd kay ku tedd kay yomb naa rey kana yàlla dimbali kay waaye kon fi ne affaire am passé na am déet ah yóbbu sama juróom fukki xar ci juróom dem ba ci suba sax dem nañ ah xar yi dañoo naa xam ne kii oto yi ñoo ko seen kor dégg nga après ci xar yi daal di daw toj gët bi tiit fee lañ nekk ci gennaaw ci la ñu ma fii maa ngi taxaw fii bëgg leen dem ñu ne soo fa demee bàyyi fay rëy waaye kon dama doon jël samay xar ñu ne soo fa demee ñu rëy ndax boobu ñu ngi taxaw fële ñoo ko maa ngi dëgg ñu tit tit tit ko door di door di ko yóbbu am na ay xar bi ñu bi ci des ni ci kër gi nii wëti na boobu dañ koo damm ab béjjén ya après daal yàqal nañu yàq bu méttee métti suñ ko doon jaar xam nga ne heure bi fi ñëw taf taf taf ñu fee nubbu dara am déet taf-taf ni ñu duggee kër gi ba fa li ñu attaqué ak police yi ni ñu duggee fii est-ce que mën nañu fee nubbu dara xam nga xaju fi ah ay ay 11 heures jëm minuit ah minuit mooy boobu lañ fi nekk fa lañ nekk ba fajar